dëgër këcc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 ñu ngi fii ci Mbour Coose fàllu Diop di kenn ci ndaw yi nga xamee ni ñoo gaañu ci gaal gi nga xamee ni moo këpp fii ci waaxu mbuur ki ñu toog ak nag Maodo jóob lay wuyu di rakk ci ki nga xamee ni mooy seriñ Fallou Maodo ñu ngi lay nuyu di la masawu di la di la vraiment encouragé di la jaale aussi samag bi nga xame ni moo ñàkk bakkanam ci gaal gi nga xamee ni daanu na fii ci waaxu mbuur waaw maa ngi leen nuyu bu baax maa ngi leen nuyu bu baax affaire moom gis ñëpp ci bokk yam daal métti na moom waaye nag. lañuy sant yàlla rek waaw te xam ne noonu la ko borom bi bëggee woon waaw. Fallou sa mag la moom ay atam ci ñaata nga koy xayma. waaw ñaar rek waaw ñaar rek ci lay toll. jotoon na am soxna jot na bari ay bàyyi ay tuut tànk wala. déedéet jotul woon a am soxna nag jotagul woon a am tuut ndax mi ngi doon yëngu ci dara fii ci réew mi. waaw mu ngi doon yëngu si si dara waaye xam nga rek. liggéeyam dafa taxawoon benn instant liggéeyam dafa taxawoon mais am na am na si lu mu doon yëngu euh, dafa taxawoon nag waaw loolu taxoon mu nekkoon fi temps jamono yooyu noonu yëpp ndax seen kër dafa am ñu fa mas a jaar ci gaal yi tukki ba loolu influencé ko ba mu am moom it gëm-gëmu dem fi la nga xamee ne mooy bitim réew wala. waaw immigration yi moom doon na fi doon na fi am doon na fi am ay nit di si di si dem ak yooyu noonu waaye moom xëy na. situation moom ak situation yooyu noonu bokkul ndax affaire moom daanaka li nga dundandoo nit ki rek moom nga mën a seede kenn ku nekk li nga dund ak moom dong nga mën a seede moo tax waaye affaire immigration yi moom yàgg yàgg na fi yàgg na fi daanaka ñu si bëri si waa Mbuur yi daan dem waaye moom daal xam naa ne li ñu li ñu jot a dund ak moom daal xam naa ne moom lañ gën a maîtriser daal moom lañ gën a alors ndax lu jiitu bisub dimanche bi nga yëg xew-xew bi jotoon na di waxtaan ak yow lu jëm ci am na bëgg-bëggu dem bi tim réew wala loolu daaw leen ci waxtaan. daal daan nañu waxtaan sax waaye xam naa ay ay junj la daan doon rek ay junj la doon doon rek xam naa moment yi sax ngay doo comprendre wax yi mu daan junj ak yooyu noonu waaw mais daan nañu waxtaan moom mais daf ko daan junj rek. waaw léegi daawul nekk ay wax yu àgg ak yooyu sax waaw ndax dafa bëri woon jàmm trop trop buy waxee sax danga naan kii daf ñoo yab. waaw fu bëri woon lu muy kaf daal mais daal yu bëri yu mu doon wax da ko doon junjaaleeg yooyu noonu waaye xam nga rek du ko wax ba du ko wax mu àgg waaw du ko wax mu àgg moom moo tax daal noonu daal lañ ci lañ ci toll daal. Euh, li xew dimanche bett na Sénégal yëpp certainement bett na waa Mbour mais yéen yéen ay famille xanaa bett na leen. waaw ñun moom yàgg yàgg nañoo xam moom moom bëgg-bëgg fàll fu mu toll yéeneem moom ci ci famille bi fu mu toll moom ñun yàgg nañ ko xam ndax. dafa nekk nit koo xam ne moom daanaka xol bi daal moo ko moo ko sonal xol bi moo ko sonal dafa dafa bëri yërmande trop trop trop trop dafa bëri yërmande trop trop waaw xol bi daal moom moom moo ko sonal ba nga xam ne daal bëgg na bëgg na tey tekki ne ay moroomam bëgg na dimbali maire bi bëgg na koo teg ci condition yi normal ba nga xam ne du ñëwee benn moromam waaye daal nii la nii la nii la mujj demee daal waaw nii lañ ci toll daal. nan ngeen li nga xam bi. waaw tiis bi de comme information yi ni muy ni muy kiiwee rek ni muy circuler rek mhm. ñu ñu daal si jot comme ñu ñu ñu dëkkal yooyu dëkkandoo yi biñ si si jotee ñu daal di ne dañuy dem hôpital sur place ñu xool bi ñu demee daal lañ fa lañ fa nekk ak sama grand yi après ñu jox ñu information que ni daal am na ay core yoo xam ne dafa dafa dafa disparaître ba ñu ngi koy ñu ngi koy seet daal ñu ngi seet ay corps waaye mënaguñu woon confirmer ndax si la bokkam déet moo taxoon daal ñu ñu ñu ñu àndaloon ak équipe ba fa nekkoon yëpp di seet di seet di seet ba yàlla def ñu gis ko waaw ba yàlla def ñu ñu gis ko daal ci yeneen anam waaye nag dañuy sant rek dañuy sant bu baax. ndax lu jiitu ndax lu jiitu dimanche bi gëj nga gisante ak moom ak it ci lan nga mujjee waxtaan ak moom lu jiitu muy jël décision dugg ci gaal yi. waaw dimanche bi gisante nañu sax waaye xam nga moom moom dafa bëri ay ay kaaf ah, benn waaw woo ma sax ñuy waxtaan ak yooyu. daanaka mais ay tur daal da dalay dalay delloo si daal daanaka lu bu amee si si lu mu nekk sax daanaka da koy jël teg ko nale moom toujours nit ñi daal moom lay gën a sóoraale day jël boppam teg ko fële à chaque fois dañuy waxtaan ci yooyu ay waxtaan yoo xam ne daal waxtaanu biir nekk daal mën naa ne mais daal dalay day ëpp li muy ëpp si lu mu lay mooy ay kàddu dalay delloo si daal. Mm-hmm. dalay delloo si yu bëri ay daal daanaka situation dinañ ko changé. xam nga daal day baax amul ragal yooyu daal ay waaw yooyu daal la lay wax rek waaw waaw à chaque fois daal yooyu lay wax rek mais daal doy na waa daal yéeme na trop yéeme na trop yéeme na de. ñu yëg ni koñ bi daanaka du moom kese koñ bi ngeen dëkk moom moo ci ñàkk bakkanam ndax ñeneen ñi nga xamee ni jot nañu ñàkk seen bakkan ci koñ bi jot nga leen a xam waaye tamit dafa am relation bu ñu amoon ak Fallou. waaw d'après daal information yi moom dëgg yàlla ñi ñi ñu jot a wax moom na ñu ma am na ñu ma ci xam ñu ngi seet ba tey gisaguñu leen te ñoom tamit waaw ah, amoon na relation daanaka Fallou moom ñu ñu amalu relation fii nii amul de Fallou moom daanaka ñu bëri sax dañ naan Fallou fu mu dëkk daanaka kër goo dem fa nga koy fekk ni muy mel ci kër gi noonu la mel ci kër gi daanaka kër gi sax ay lekk ak naan sonal ko ci kër gi moom dem lekkee ci yeneen kër yi moo ko gënal. daanaka waaw loolu daal moom moo ko gënoon a sonal waaw amoon na relation ñëpp moom vraiment amoon na relation ñëpp képp koo xam ne yaa ngi yeewoo ci koñ moom Fallou na relation ak yow sonaloon na ñëpp waaw ndax dafa bëri jàmm xol bi moo ko sonal waaw amoon na relation ñëpp moom vraiment ñëpp ñëpp ñëpp alors ñu yëg ni gaal gi daanaka waajoon nañ ko sax bi su màggal tubaa waaye waa koñ bi ñu bari dañ ko yëgoon moo tax ñu annulé ko ndaxit it yéen bi ngeen yëgee ni mu ngi waaja dem ci gaal yi loolu jotoon ngeen ci waxtaanak moom waaye ki nga xam ne moo tëgg gaal gi ci boppam ñuy wax ni doomu maire bi fi nekk la euh, jotoon ngeen a xamanteeg moom wala lu aju ci loolu. waaw waaw après sax ñun si lañ jot ci information yooyu noonu. si lañ jot ci information yooyu ndax daanaka yu si ëpp si yooyu moom buy am. Mm-hmm. même nit ki bu la koy waxee du la ko wax directement. xëy na dala koy junj di la ko jaaree feneen ak yooyu moo taxoon mën a woon xam exactement kan kan moo si dem kan moo si dem mais après daal bi ñu bi ñu kiiyee ci laa ah kon saa mooy façon wax yi ma daan wax rek ndax daanaka façon wax yi daan na mu ko mais musul àgg. xëy na noonu ci après na si lañ ma expliqué ñu bëree bëree bëri ñoo xam ne tamit seeni mbokk ñu ngi leen di seet après si lañ xam ne kon xëy na ñoo ñoo àndandoo. ñoo àndandoo ndax daanaka ñoom ñëpp sorewuñu koñ bi daal ñii ci ginnaaw lañ dëkk ak yooyu sorewuñu ci lañ xam ne daal ñoom ñëpp àndoon kon alors ñuy jot ni gaal gi ba tey li ko war a këpp am na ñuy xalaat ni bordel wala xeex dafa amoon ci biir gaal gi mën nga ñu wax euh, naka ngeen découvrir ki nga xam ne mooy fàllu fekk ngeen yaram bi dara manqué wu ci amul ay blessure parce que ñëpp nee nañu wala am na ñu ne dafa mel ni xale yi dañ doon xeex ci biir gaal gi xeex boobu waaw xam nga nit ñi moom genre yu mel nii bu amee da ngay information dafay dafay diversifié wu da ngay dégg ay version bu nekk daanaka ñu bëri sax daan nañ ma ko wax mais man maa doon tànkam rek ndax comme ñu ngi nekkoon di liggéey pareeguñu ma ne naa bàyyi ànd ak bi rek saa yu ñu xëyee ñu xool comme nouvelle bi bii lañ ñuy dox te ñoom daanaka ñoo ñu ëpp information nañu ànd ak ñoom rek xëy na bu ñu leen découvrir dinañ mën a dinañ mën a jot ci suñu koor ndax daanaka loolu rek loolu rek moo fa des ndax koo xam ne nii moom génn àdduna moom mënatoo faa nekk di di liggéenti dafa doon xeex mhm. da doon def li wala ndax lépp loo mën di liggéenti tamit mënatu koo indiwaat li ëppoon sol daal mooy ñu jéem a fexe ba ba ba képp koo xam ne le maximum daal ci li ñu mën a recueillir ci ay koor ñu jéem leen a jël taxawu famille yi nga xam ne ni tamit doon nañ seet seen seen i njaboot te gisuñu leen waaw nañu gis ko mhm. buñ anam yi moom neexul ndax ku ne xam na ndoxu géej nu mu mel mm-hmm. ndoxu géej nu mu mel waaye nag biñ ko gisee daal dañoo dañoo dañoo sant yàlla rek dañu ko rek daal di dem mm-hmm. daal koy ñaanal daal koy denc waaw mm-hmm. ñàkk nga bëgg yëkkati benn message de sensibilisation jëmale ko ci ndaw ñi waaw ndaw yi de daanaka moom kenn mënu leen moom man ak ñoom ñoo tolloo génération daanaka waaye daal affaire yi daal jàpp naa ne tolluwaay la rek ndax ku nekk moom boo koy jugé da nga koy jugé selon li muy dund si biir këram waa kon ku si mel ni Fallou xëy na peut-être mën naa xam kaaw Fallou mais ñeneen a ñeneen li ñuy dund seen biir kër ma koo xam. moom mooy seen taw xanaa mooy taw kër gi. moom mooy suñu taaw kër loolu moo taxoon kenn tegu ko nag pression. kenn mësu ko teg pression moom vraiment mais xam nga rek moom moo moo amoon yéene boo xamante ni daal bu sañoon daal kenn du kenn du sonn kenn du am benn jafe lu waaye soxla mu yëkkati jox la waaw waaye nag li yi di dund seen biir kër yi daal. même bu ma ko xamul it xam naa ni métti na ndax ku xëy jàkkaarloog sa yaay boo sañoon da ngay yëkkati jox ko daal di dem wuti boo ñibbisee defaat ci kër gi ba nga xam ne ñoom duñu duñu manqué dara duñu toog di xalaat dara dara dara loolu moom daanaka kuñ ko waxul sax xam nga ko waaw jeune bu nekk moom surtout jeune su léegi bi ñoom ñëpp tey seen seen waajur yi tey buñ sañoon dañ leen teg ci condition yoo xam ne nii daal duñu duñu am duñu am benn xalaatu àdduna daal lépp lu ñu soxla ñu tegal leen faaw ñu jëm leen a comprendre sens boobu te jëm leen a jege waxtaan ak ñoom ndax gëm naa ni affaire yi fi muy toll nii waxtaan rek la laaj. waxtaan rek la laaj te xam ne jeunes yi fi mu nekk nii moom téye leen daal du du du du yomb ndax xëy na yéene bi ñu am ci seen ay waajur ak yooyu noonu. moo moo moo leen gën a sonal. waaye pression moom wax dëgg yàlla man moom ñi ma dëkkal moom waaw nekkuñ ci ay pression ak yooyu noonu seen waajur moom ñu ngi leen di taxaw bu baax. ñu ngi leen taxaw waaye xëy na ñoom seen yéene moo toll foofu rek seen yéene moo toll foofu. alors ñu ngi lay masawu ñu ngi lay masawu di la jaare bu baax. Mm. waaw affaire yi moom ñun ñëpp a ko bokk naa ko jullit moom jullit ay mbokkam ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ waaye dañuy santaat yàlla bu baax rek.